subhaanallahi bukratan wa asila auzu billahi min alsheytaani arrajim wa inni auizuha bika wa durriyataha min alsheytaani arrajim rabbi auzu bika min hamsati shayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه wa uusikum fiihi wa baadahu bimulaasamati maxtiira lakum min al axlaaq wal aqaaidi wal aqwaali wal afaali li wajhi llaahi taala alqaaid wa uxadirukum fiihi wa baadahu an fiili maa lam yuxtar lakum min al ibaadaati wal aadaat fa innama axtaarahu llaahu tabaaraka wa taala lakum huwa aljaamiu lissaadaat fa tuuba liman laa yaltafitu ilaa gayri rabbihi mulaasiman maxtiira lahu min muniiri lubbi wa waylun liman qaadahu ibliisu ilaa maa shaa fa innahu yulaasim maxtaara ma axsa wa asa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aatikum rasul fa xuduuh wa qad qaala allahu tabaraka wa taala fa man yacmal mithqaala darratin xayran yara fa tuuba liman axsa ma fa tuuba liman axasa ma ata bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama mucti suul walladi himmatu yartaqi ila alxayr laa ila alkadari waddayr wa waylun liman yaaxuz ma ata bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaaman jaada binti bintiqa wa usikum ya ayuha al ixwaan li wajhi man kafaani dawi alxasadi wal udwaan bi an laa tufaarixu maxtira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fili ma an fili kulli ma lam yatabayin lakum kawnuhu kawnuhu sawaba fa innahu mimma yuwajjihu ila gayrikum al ajra wa rida wa sawaba wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa attaqwa wala tatlubu alizzata min gayri alazizi almuiz bi jaahi abdi nabiyihi rasulihi alaiz rasulihi alaiz fa inna man fa inna man adbara an lillahi tabaraka wa taala ila siwah tarakahu maa nafsihi wa hawa wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min aljamil min aljamila ya ayuha annaasu ubudu rabbakum ittaqillaha xaysu kunta man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam anna man taaba min ummatihi qabla mawti fa innahu yashfau fihi inda mumiti mayti wa anna man lam yatub fihi tawbatan nasuha faqad amarahu man waathu nasiha rabbana la tusix qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا alhamdulilah alladi jaala yowma alciidi yowma altawsiati waltafrihi walitlaq walsalaatu walsalaamu ala man axrajana min zulma min zulmati aljahli walshirki wannifaq min zulmati aljahli walshirki wannifaqi walimlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi dawi lwifaq wa ala man tabiahum bi ihsaanin fi jumlati alafaq amma baad fa hada alyowmu yowmu mubaarak wa lana fihi sheyun lam nusaarak fa ahmadullaha tabaraka wa taala ala ma jaada bihi fii lilmuntaqa alayhi salaamahu bi jamihi muqtafi fa inna haadha al yowmu yowmu aklin wa shurbin wa itq fa jaahi man jaada bi fadli jaahi man jaada bi fadli ratq fa man shakara allaha tabaraka wa taala fii fa innahu yazdiru bi kulli ma min alxayri yastafih fatlubu min allahi tabaraka wa taala xayrahu fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila xayrikum dayra وتوبوا فيه وتوبوا فيه وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم من ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه, فيه الاجتماع بجاه ذوي الغثوات المردية صلى, صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي